asalaamaaleykum waa àdduna ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen bu baax a baax di nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi bàyyiwuñu kenn képp ku nekk rek fa nga nekk ñu ngi lay fay fekk sukk sa kanam jox la suñu loxo di la nuyu di la ziyaar di la ñaanal yàlla yàggal la fi ci barke Seydina Mohamed di ñaanal ñëpp bàyyiwuñu kenn noonu la ñuy def dem ba ci hôpital bi rek di ñaanal ñi tëdd ci lalu hôpital bi na yàlla fëgg seen bopp ba ñu delluwaat ci seen i njaboot di ñaanal ñi nga xamante ne ñoom la caabi féete ginnaaw yàlla delloo leen ci seen i kër bàyyi leen ci seen sago ci barke alxuraan karim te kenn bañ faa dugg di ñaanal ñi nga xamante mooy borom kër yi yàlla def ci poos yi dara baax di ñaanal ñëpp ci décembre bii ñi nga xamante ne mooy suñu mbokk chrétiens yi ñu leen di ñaanal yàlla suturaal leen yàlla sàmm leen yàlla defal leen jàmm ju kawe kawe ndax car macha allah kenn du ñoom ci mim ngi ciy ziyaare suñu xar yooyu nga xam ne ñoo dëkk fee nga xam ne mooy Touba Seras ñaanal nañ jàmm di am mbégte kontaan teewaat fii nga xam ne mooy Leral TV Leral point net émission aada ak cosaan ñu am mbégte di ko def ak tonton Ngari ak soxna Ndeya ak ki nga xamante ne mooy murit di jaajëfal Babacar mi nga xam ne moo nekk mi nga xam ne moo ñuy jël élément yi di ñu ko indil fii ci leeral TV leeral point net télé bi nga xam ne moo wér te wóor ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax tonton Ngari ñu ngi lay nuyu di la ziar di la ñaanal jàmm bu baax a baax. waaw maam Mara ñu ngi fay salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi nuyu mbokk àddina ak jigéen mag ak nag dañ koy jaarale ci sang bu tedd bi Cheikh Mountakha Mbacké xalifa général kullu murit dañu fi yàgg lool ci wér njabootu kër nuyu baax Serigne Babacar Sy Mansour ak njabootu ko Maam Alaaji Maalik gépp waaye nag di nuyu na Thierno Bachirou Tall xalifa kër Cheikh Oumar yàlla yàlla may leen wér ak gudd fan nuyu Cheikh Mayou Niass waaye nuyu Serigne Sayer Mbaye fii ci kër Cheikh Al Kabir ak mboolem kilifa ak xalifa généraux yi ci Sénégal gépp nañ ko maam mare waxe nuyu waa jàngu te di leen ndokkeel yàlla yàlla may leen jàmm may ko réew mépp di nuyu nag seen excellence le président Macky Sall ak mbooloom gouvernement bi ak muy opposition bi ak société civile fàttewuñu kenn yàlla yàlla defal ñu jàmm ñun ñëpp suñu la jàmm defal ko waa réew mi euh, di leen nuyu di nuyu Ndeya bu baax nuyu Murit moom it nuyu Babacar ci réalisation bi ak Matar Sakho ak Leral li ko door ci suuf ba ca kilifa ga ñëpp ñu leen nuyu di leen baax Euh, tonton Ngary ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci nuyo bu am solo boobu nga def am yar ak teggin ñi ñaan lépp loo fi ñaan rek yàlla na ko yàlla def ci àdduna bi noonu la ñuy def rek dem nuyu ñi nga xam ne ñooy homme de tenue dañ leen a fàtte woon te waruñu leen a fàtte sapeur muy gendarmerie police bàyyiwuñu kenn ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ak ñi nga xamante ne ñooy faj damaa am xarit boo xam ne hôpital nekk nee na yow moom doo ñaanal ñiy faj ñi malade yi rek ngay ñaanal waaye kenn du yéen ndax malade bu ñëw yéen a koy accueillir faj ko defal ko lépp ba mu baax kon ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax soxna ya nuyu naa la jaajëfal bu baax a baax asalaamaaleykum Mari ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci Yonent bi sant sunu ñaari waajur ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu kilifa aada yi di nuyu ñi ci hôpitaux yi di leen ñaanal yàlla sunu borom génne leen fa ba ñu dellu seen njaboot aussi comme ni nga ko waxee di ñaanal aussi ñi nga xamante ni ñoom ñooy faj ñoom tamit eh, di leen ñaanal yàlla suñu boroom gën leen a dëgëral yokk seen taxawaay ba ñu mën di faj maladie ñu dellu seen njaboot. di ñaanal aussi ñi ci prison yi yal na leen yàlla suñu borom génne ba ñu dellu seen njaboot ñi amaan mbégte contentement teewaat fii ci plateau bi Aada ak Cosaan eh, am ci mbégte contentement partagé ko ak tonton Ngari Murit ak yow maam Marème eh, ak mi ci régie bi ñu ngi koy ziar. Mm-hmm. <laughs> Euh, merci beaucoup soxna Ndeya ci nuyoo bu am solo boobu nga def euh, ñu ngi la ci jaajëfal bu baax a baax suñu baay Ibra Diaw mu ngi depuis sanc ba ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal jàmm nee na lan mooy aada ak cosaan tonton lan ngay wax baay Ibra Diaw ci laaj boobu nga xam ne laaj na ma ko toujours. ñu ngi koy ziar baax di ko ñaanal jàmm. ñaan ko am njabootam. aada aada de lu samp la. cosaan it lu sos la. dëkk sàngam dañ koo sos cosaan la. jëf sàngam dañ koo sos cosaan la jikko sàngam dañ koo sos nit cosaan la fa cosaan mooy lu nekk lu ñu nekkal aada dafa am lu aadawoo di ko def maanaam aada woo ngénte aada woo ceytal aada woo dëj xam na ñoo xam duñ ko def lu seen aada aada woo wax lu baax aada woo jëf lu baax kooku sunu aada la xam ne boo ko def rek ñu yedd la. ñoom ñaar ne boo leen aada ak cosaan. jaajëf ba tax na ay eh, wax ji am na solo loolu aada ak cosaan mooy comme ni ko tonton Ngari waxee émission bi nag waxu olof moo ko tax a jóg daray français laaluñu ko ci ba tax na dañ fiy wax olof kon Baye Ibra Diaw taalibe sëñ Modou Kara taalibe sëñ Ousmane Mbacké Noreyni yal na la fi yàlla yàggal kon lii mooy aada ak cosaan murit ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la jaajëfal yow mi nga xam ne tey boo ñu doon wax murit bu mu xalam bi mu yor tey lan la. murit jox xam ne <laughs> <laughs> naa leen Ndeye Mariam. <laughs> ziar ngaari bu baax a baax. Mhm. tey nag ñu ngi si morse bu naan Tara xam naa li may xalam tey dafa xaw a suufe moo tax ngaari déggu ko. Mhm. mais tey maa ngi si Tara. Tara waaw di profité waale nag. Uh-huh. damay profité quoi. Mhm. ndax am naa sama benn grand bu baax. Mhm. sama mag yu baax si man. Mhm. ñu ngi naan ko Malick sekk tailleur mu ngi fii tout près. si wetu banque bi. kooku dama koy ñaanal yàlla. waaw xam na xam naa. ndeysaan El maa ngi lay ñaanal di la bégee di kontaan yow. <laughs> moomoo ko waaye eh, defe naa ne ci biir nga bokk yaa nga ca biir carrément nee naa la ku bokk ci gétt gi rek di nga naan ci meew mi mbaa nga lekk ci ndawal gi kon defe naa ne yaa ngi ci biir tey Ndeya ci yow laay njëkk tey tey boo ñu doon wax li nga xamante ne mooy ak cant Ndeya lan mooy ak cant. Euh, cant maam Marème dafa nekk loo xamante ni war na bépp jullit képp kuy xëy di nooyi rek war nga sant. ndax yàlla suñu borom moo moo ñu ko may ñuy yi di dox suñu soxla di def lépp kon heure bu ñu xëyee rek war nañu sant kon sant ñëpp la war rawatina jullit bi nga xamante ni yàlla suñu borom dafa digle julli waxtu bi juróom bàyyi ma sax bu julliwul du fanaan jullit bu julliwul faat ay waxtu yàlla suñu borom bàyyi ko bàyyi ko noonu muy lépp mu nekk ay bor yoo xamante ni bu tayee mu fay ko bu subaa du ko fay kon euh, ñun jullit ñun ñoo war a gën a sant doomu aadama ñun ñoo war a gën a sant yàlla heure bu ñu xëyee dañoo war di sant yàlla di dolliwaat ci ñu ko santoon waaw Bambara jaajëf ba tax na heure bu ñu xëyee dañoo war a di sant yàlla bu baax a baax mais di sant leeral TV leeral point net li ko commencé ci kilifa ga ba ci man mi fi gën a tuuti ñuy ñaanal ñëpp jàmm di ñaan yal yàlla def ci tele bi barke yàlla nañu yàlla suturaal ci barke Seydina Mouhamed ci weeru 31 décembre bi tonton Ngari tey ak jullit nan la war a cantee. Euh, nit sax nga xam ni daa daafal la bu lay defal te santoo bu yàggee mu bàyyi su ma ki nga xam ne moo bind nit te lépp mooma commencement ba fin euh, Sénégal nag dañoo doyee ji ak sant mbaa bu ñuy sant dañ koy benn baat la alhamdulilahi rabbil alamin bëgg la baax na waaye cant jëf la yàlla bu lay teral da nga koy nangu réew mi nag dañoo nanguwul teraanga yàlla xalaat gi mu ëpp cant moo tax métti bi ëpp noof laay gi dañ bu waxantee dëgg mm-hmm. wax nañ ko ci kenn émission keroog yàlla amul luy manque yàlla manque lu dara mm-hmm. boo déggee ñuy coow coowal jën ci géej naan jën amatu fi ay wax la rek mm-hmm. jën mosu fee jug bis bu nu togg jën <laughs> gannaaw nag yàlla day joxe te nanguñu ko ni ko yawa mu téye fam métti duñ dal Sénégal gépp ak torof torof yi ñàkk sant yàlla su ma déggee ñu nu jiw mooy espoiru réew yi damay tiit barke borom Tuubaa bu ko dégg damay tiit waaw kii wax lii moom ndax xam na kooka kuy dee noo doon espoir xam nga fi dégg gaañu na sang nañ ko sang nañ ko suul nañ ko dëj nañ ko point dellu ci leen kooka ku yaakaaroon ci moom vojë espoir nit mooy yàlla sa borom. bind addunaam bi wàcce la fi bind lépp. nga jël yooyu yëpp nag dénk ko nit. loolay ñàkk sant di yàqu. yow boo xëyee ne jàmm. julli sax doo ko def. koor sax doo ko def. ñaata gàmmu am ñaata màggal ñaata cant. dem nañ ba Sénégal léegi koor dañuy togg ndog ci mbedd yi di jox nit ñuy xéwlu nga bañ a sant yàlla bu njëkk nga naan Louga gii ñu ne benn oto moom fa daan tukki muy sunu kaaru Baye Mamadou Sidibé moo daan tukki léegi da ngay toog sa kër am sa oto bàyyi fa oto ba woo allo Dakar fay ko ñaari junni mu yóbbu la Dakar mm-hmm. Mm-hmm. loolu du yàlla mm-hmm. bu baax ku amul woon jabar xëy am benn. nga amoon benn bayaag nga am beneen muy ñaar. ñëpp di añ di reer di ndékki di faj doo sant yàlla. Mhm, dëgg dëgg. nga tëddandoo nit nit biig ñu woo la ne waa na doo sant yàlla. Mhm. Sénégal mhm. bu ñu sant. yàlla woon na boppam mooy li xew nii. jiital nit suñu kanam. mënulul boppam dara mënul sa bopp dara yàlla bàyyi la ñooñu. loolu nag mooy sant yàlla. macha allah ba tax na saa suñu xëyee rek. war nañuy sant yàlla bu baax a baax a baax ndax yàlla daa nekk loo xamante ne nii de moo lay jox te doo ko ñaan moo lay defal te du la laaj moo lay aal te du ko nanguwaat ba tax na kon fu ñu toll rek war nañ koy jaajëfal bu baax a baax tonton yi wax na ko léegi nee na nit ñi ñu bari julleetuñu wax nga dëgg da nga ciy gis ponkal moo xam ne nii day mën a jële oto Louga yóbbu ko ba Ndakaaru Njaay xam apéage bi xam fii sens interdit la te mënul tari faatiya xamul dara ci lislaamam xëy suba yeewu liggéey ji wàcc guddi war a noppaliku mbaa mu dem julli ay waxtoom mais mu nga taxaw ca sabar ya di seetaan góor ñi rek ngay gis ci sabar yi ay waay lii mbaa jàmm la fu ñuy jëleetee kuy jiite ay fu ñuy jëleetee kuy tudd doom yi bu ñu juddoo nday yàlla ngay wax ci loolu waaw euh, ma góor yi ngay gis ci sabar yi yaakaar naa ne nekkuñu du kilifa yi du ñuy tudd doom du ñuy jiita jàkka ñiy jiite jàkka ñu ngi ci jàkka yi ba tey ñuy tudd doom aussi mooy imaam yi xam nga ñooñu ñu déglu sax musique bay dem ci ay sabar ñu koy def mooy génération léegi bi ñi nga xamante ni maanaam amuñu amuñu jëmukaay amuñu liggéey wala xalaatuñu bu ñu yeewoo fajar def dañoo war a xëy wala dañoo war a def leneen dañuy nelaw ba heure bu leen neexee ñu doog a jóg ñooñu ñu nga xamante ni ñoom ñoo am jot ñoom ñoo ñoom ñooy wër sabar yi yaa ma gën a xam topp sabar yi mais góor ñi nga xamante ni dëgg am nañ occupation leen ne bu subaa boo xëyee di nga def yaakaar naan taloo dem sabar am na jigéen ñoo xam ne sa taloo ñu dem sabar parce que bu ñu xëyee fajar dañuy dem liggéey dëgg dëgg la maasàllaa euh, euh, waaye ndey dañu ne xale mooy yori réew ëllëg imaam yi ne ci jàkka ji bis day jot yàlla na yéex yàlla na yéex a yéex ñu jóge fi mais bu fekkente ne xale yi nga xam ne ñoo nekk si àdduna bi jamono bii gis gone gu ndaw yaayam war a ñëw njëkk koo tëdd xool ko ndax tëj na buntam yow sa yaay njëkk laa tëdd bàyyi la si mbedd yi ñaata xale ngay dajal guddi ci mbedd mi sabar yi bu xewee xale yi ngay gis dalay jaral sax nga wut yat taxaw ne dàqal ma xale yi kon ban xale ëllëg moom mooy nekk ci jumaa ji xale bu xamul faatiya loo jàngul est ce que di nga ko tari kon defe naa na ni santaat yàlla bu baax a baax a baax te yar suñu doom yi di leen teg ci yoonu siraatal mustaqiima tonton Ngari da ngay gis ku mel ne Mame Marème am yor compte banque mu ne sama liggéeyu ndey la ak sama barke baay waa ana yàlla suñu borom. juumte la waaye li wax léegi dem sabar moo gën fen mhm. ay mag mhm. naa dem sabar mhm. donte daganul xëy sax gis na foofu daganul <laughs> waaye taxul yàlla tiit fen mooy tiital yàlla fen <laughs> ñaata ma ngay fen sax si kiir di fen yow lu koy seetaan da ngay xam ni moom. Ah. kii waxul dëgg. moom xam na ni waxul dëgg. waa kër xam ni waxul dëgg. <laughs> te moom da yaakaar dëgg la wax moom. suba bu ne nag ba ngoon. Mm-hmm. xale yi dañuy dem sax concentré ci portable léegi. Mm-hmm. boo ñu bëgg a dalaan sax ñu dem seen yoon. Mm-hmm. ki nekk ci portable mën naa am sax ma la ñu seetaan xëy na baaxul. waaye newul ci kenn. waxul kenn dara. tuddul kenn ma nga ca portable am moom. ku maanu bàyyi ko portable. xëy na amul fu mu dem nga dégg ne sabar gu tëj mu dem seetaan ci sax ngir ndax xëy na petit esprit nga gis mag ñëpp sol solu kilifa toog ci télé di fen ba ngoon yàlla dëkk ci mel rek seesu yàlla ba mu toog fena ko yëngal mm-hmm. nee a kon war naa wut ministre bu ko jege waaw Sénégal dañ damu seesu yàlla mbaa mu jël weñ ndax mm-hmm. te dafa am lu ñu tudd imam <laughs> ñu di tudd imaam. ndeysaan da xam ne imaam nii di wax nii yow da ngay d'accord ne kii bu jiitu taxawoon julli du jiitu. dëgg parce que day tooñ. Mhm. imaam buy sosal nit. Mhm. di wax lu dëgg. Mhm. di dugg ci benn doomu jàmm dugg lu privé. su paree taxawal jiite julli. kooku comme jiite nag dëgg. yàlla xam julli bu nangu de waaye bul yaakaar. macha allah xale yi gis nga li nga wax léegi. Eh? moo ne ci réew mi. damay wax sànq rek ko ma ne damay dégg réew mi doxul. ñaata tonne ciment mooy gars yi xeet nañ R plus 1. Mhm. plus 4 la ñuy defar léegi. Mhm. oto ba la romb ñu la 85000 noonu lay jar. Mhm. ñenaa la ñu aawloo woon ñëpp ñaareel nañu borom ñaareel ñetteel nañu. nit ñi léegi bëggatuñu reere ceeb soos sañu reere. nga ñu réew mi doxul. geeru bal tàkkul. ñu ne ñu ne ci kaso bi ku waxul luñ la yóbboo kaso doo fa dem. waaye mënoon na ci réew mi saaga nit ñi. di dóore di yàq li fi jël ñu tëj la ñu ne pourquoi ñu koy da mhm. ngaa yaru bu ne dix huit million newul ci kaso mhm. kon di millions bépp ñu ngi ñu ngi ñu ngi rëskumaa indi laay di góorgóorlu. Mhm. maandu. waaye nekk ci tool bi kañ la duma. amul fenn càmm. bu la dumaw fii duma la fa yàlla. xam nga rek sunu bopp. Eh, ak gis nga alhamdulilah bi. Cheikh Béthio Thioune foofu la rawee murid yu bari. dëgg la ak luñ ko mën a wax. Mhm. ak cantam ci seen tubaab kenn jëfewul lu ni mel. dëgg la. parce que yemalewul nag yu biir këram. Mhm. daa dem ba santaani kër gi doon jox la nag. Mhm. jox la ceeb ak jiw. da nga ca làkk loo xam sax ay fan da nga ca mën ne mbaxal di lekk. kooku ak cantam passé na foofu. macha allah ndeysaan la kan mooy cant ne moom. <laughs> dëgg la loolu ay muur ba egg sant la. ndeysaan su yàlla mayee xaalis dañ koy solu. takk ci ba tax na nañuy santaat yàlla bu baax a baax a baax ndax dane am koo xam ne dafa ñëw ne eh, ndax julli dina jël alalu jàmbur mu ne parañ saa nga ne ndax jullit dina njaaloo ñu ne parañ saay ñu ne ndax jullit dina fen dégg naa kooku ne ko julli du fen jullit du fen jullit du fen muy Seydina Muhammad Rasulullaay suñu sang bi yàlla ñu yàlla yokkal leeram yàlla taas ñu ci barkeem kenn du moom ci mim réew moom mi nga xamante ne nii des cent la woon mu jël quatre-vingt-dix-neuf yëpp Seydina Muhammad Rasulullaay kenn du moom ci mim réew Babacar bu dee jàpp na la ngay indi ñu benn élément ñu desuwaat fii si plateau bi. salaamaaleykum ngeen def ngi sant yàlla bu wér nuyoo. Fatou kan laa tudd dëkk Marbat ñoo war a sant yàlla soo xëyee feebaroo dara jotu la soo xëyee war ngaa sant yàlla bu baax dool di sant sant yàlla war na ko ni soo xëyee di sant heure boo xëyee war ngaa mën a sant yàlla bu baax ndax sooy développé soo amee tey bu ëllëgee nga gën a am avancement war ngay sant bu baax fo di sant yàlla toujours ngay sant nga sant rek boo xëyee xool say cër dara méttiwu ci soo xëyee mën a say tànk tàllal say loxo kenn yóbbu kenn mën a demal sa bopp sant rek sant rek sant yàlla moom ñëpp la war alhamdulilah rabil alamin rek. kon la war. ñëpp la war jaam yëpp la war. waa kay ñoo ngi leen di gërëm di leen sant yéen waa Leral TV di leen ñaanal ngeen yokk ba yëg ko. Ah, waa di jërëjëf waa euh, suñu yaay booy boobu nga xam ne moo dëkk ba marbat di ko ñaanal yàlla guddal fanam ba heure bu xëyee di mën a sant yàlla bu baax a baax may ziare mel biti loxo sama goro boobu nga xamante ne moo yor sama rakk jooju muy ndaak njaay maa ngi koy ziare bu baax séeri baara ak képp koo xamante ne yaa ngi dëkk marbat rek ziar nañ la ñaanal la jàmm satamaaw baay mataar maa ngi lay ziar bu baax a baax tonton ngaari nga li suñu yaay boobu wax hmm. nee na jàmm bu nekk rek saa soo xëyee war ngaa sant yàlla bu baax a baax moo xam say cër dem ak say cër di metti xeet yëpp santal yàlla. waaw ñi nga rafetlu témoignage bi mu def. jëmee ko fa yàlla. Mhm. même bu amee lay métti santal yàlla. Mhm. parce que yàlla mën na def xar. mbaa aw nag mbaa golo nga ne ci àll bi wala def ko nit ba noppi tagg la ci alxuraan. yàlla. Mhm. yow ngay nit. wuutu yàlla ci kaw suuf parce que l'homme est le représentant de Dieu terre. nit mu wuutu yàlla parce que nit am xel. baaw sant yàlla Serigne Touba jóge na fi ànd tubaab juróom-ñetti at yu manqué tuuti ci coono la ne ba mu jël si. lim njëkk a def mooy sant sa borom jéggal képp ku ma sa tool. fi mu ñëpp a ngi waaye ku ne yaa koy bàyyi xel. maam Alaaji Maalik boo ne ko Maalik yàppa wala soow mu duma ko lekk ndax damay bañ jur gi ruur toolu jàmbur su boobaa damay bàkkaar saa bu ne xel yaa nga dem Tiwaawan ngir gàmmu ji fa mhm. ak ñeneen ak ñeneen ñoom ñëpp dañu sant yàlla pourtant fekk wuñu kat kat yi mhm. fekk wuñu huit huit coono lañu fekke woon mhm. yow nga dëkk juddu fekk kat ci kër gi huit huit R plus deux lal bu nooy salle de bain bu ñor lépp ba noppi nga dëkk ci ci ci ñaxtu mu neex yàlla nga gis koo xam ne yàlla da koy may lu bari ci alal muy koobat koobati boo demee këral la muy reere sombeeku gën denc alal bi di kof kofi sa waa kër feebar ngaa jógal par semence jox ko. hôpital man jaru ko de waaye hôpital ndax bañ caa ñàkk. aw daal di ko suure ngir sol ko ngir bañ caa ñàkk te yàlla jox lu njëkku dal. fa seen dëkk di dox ci naaj wi te yor njëgu sant mooy ngay sol lu baax. ni ma ko waxee sant dëkk fu baax. di lekk lu baax ndax da ngay dem. kullu nafsi saayikatul mawt nit ñi bu lay suuli war na ni ka xel mel ni jëmm ji ñu ko yóbbu waaye ko santoon yàllaa ngi nii ci ay teraanga yàlla bu la joxee fësal ko tey maam mare mënum dëkk maam mare bu amee basin may ma soo amee xaalis jox ma mais saa ma gisee may dina doye di maam mare bu yàggee day mer ay kii alal di ko jox fu ko jëme defal naa ko ba sonn dara tey nga am jabar basin bu jot bu jëndal ko or boo romb jëndal ko bu xew jotee muy niroo copine mhm. parce que takkul dara di lobo lobo ji nit ñi naan waaw ki ñu mhm. la santul mhm. da ngay sol ba ne jóg ay dafa bëgg àddina waaw parce que fi nga ne ku dem bar sàq doo takkoor doo musóoru doo doo tagal mais boo sa borom nit da koy neex na waaye jëf ja am na borom yooyu kër yoo xam bu nu mos dara boo ñëwee seen kër xam ne mos nañ dara li ñu njëkk def mooy wutub gàtt di ko deqareel bi mm-hmm. kër gi commencé kenn mm-hmm. ca mm-hmm. <laughs> <laughs> la ma jox jëf te jëf joo xam ni dimbali aw askan dimbali ba tax na dañuy sant yàlla saa su nekk rek ndax nee nañ ku santul yàlla doo sant doomu aadama ba tax na tonton Ngaari dama lay sant bu baax a baax ndax defe naa ne keroog ba ñuy doog a jàkkaarloo centre culturel nga ne ma góorgóorlul affaire bi boo ci demee jëmee rek di nga am lu baax lu ma ne nii ne la mënuma ko nga ne mu mën nga ko defal ba fii ma toog tey dama koy sante yàlla mais dama la koy sante yow tamit ngay ko baax ba nga jàppee ba tey bàyyi woo luñ ne nii tonton nga ne wool maam Marème kon dama lay baax yow tamit la sant <laughs> bu baax a baax ne yaa <laughs> tey lan ngay wax euh, ci ñi nga xamante ne <laughs> tonton Ngaari bàyyi si liste noire bi li ko waral aw ma téléphone bu baax waa leeral yéen a ngi may dégg téléphone bu baax aw ma ko Babacar Diop jox ma téléphone kon ndax ku ma jotul ku ne dama koo lisu rouge kon tonton ngaa lisu rouge ma la <laughs> waa Ndeya am tey lan ngay wax suñu mbokk jigéen ñi tey da gis jigéen boo xam ne car macha allah comme ti ko waxee day am ay takkaay am sol bu rafet am yëre yu baax mais bu génnee rek nga yërëm ko mu tumuranke sol loo xam ne da nga naan kii est bàyyi na yaayam wala bàyyi na pàppaam ndax ci colam loolu maanaam ci cant yàlla wala ci toroxa sa bopp la loolu maam Marème ci toroxal sa bopp laa ko jàpp ndax euh, yaakaar naa kenn ku ne da ñaan yàlla yàlla suñu borom di la may yàlla rek la ñuy ñaan mu mu ñuy may te lim ñuy may daf koy jaarale ci nit moom mhm. mu jox la ko mhm. kon jigéen bu nekk ci biir euh, këram nekk ci biir néegu sëyam mhm. yaakaar naa su ko borom ko borom këram toppatoowee li war ci moom yëpp mu koy mu koy def war na heure bu génnee di dajeeg ay nawle mu sagal boroom këram ñu xam ne kat kii toppatoo nañ ko li war ci moom ñu koy def mais am na ñoo xamante ni Euh, bëgguñu seen bopp am na yoo xamante ne leen ragga ba sonn mais duñu set ni ñu mel rek noonu la ñuy mel genre jigéen yooyu nag dañoo naqaree defal parce que dañuy dëgër bopp mën nga am jëkkër joo xam ne dafa bëgg àddina bëgg boppam mais seen jabar du mel noonu safaan ba lay mel parfois mu nekk ci ku góor parfois mu nekk ci ku jigéen mais yaakaar naa jigéen bu nekk war nga sagal sa bopp bëgg sa bopp di def même boo amul sax benn yëre bi nga yor sax nga koy fóot ba mu set passé ko bu say nawle génnee nga sol ko comme ñoom rek loolu rek sag la mais dafa am ñoo xamante ni dañoo bëggul seen bopp maamare macha allah soxna ndeyaa ba tax na doomu aadama bi foo toll rek war ngay bëgg sa bopp war ngay defaru ndax bu dee benn yére nga sol sax su guddee fóot ko nga solaat ko ndax nee nañ kat nit ki yaay sagal sa bopp yaay sigil sa bopp ginnaaw bi la yàlla sagalee nee nañ sant yàlla day tax ku la gis naw la ak cant day tax ku la gis respecté la jox la cër mais foo tollu yaa ngi naan man de su ma amoon nangam man de suma ma nangam am na ñoo xam ne dañuy jàmbata jàmbata jàmbata jàmbat ba yow sax da leen di jéppi man de sama nangam ba nday yaa de su ma amoon sa greffage bi man ni ma bëggee sa yére bi waa ana yàlla doo sant yàlla nday yaa lu ko ko may yàlla suñu borom ne ni mun naa liggéey ba dee te du am dañ ne njar mi lambul nee nañ ba wurus ca diggalal ba nday ju may nday ju baax mayewu ko teel a xëyee koy maye ak sant yàlla kon defe naa ne doomu aadama bi foo toll war ngay sant yàlla te nga xam am na loo xam ne du liggéeyu ndey du barke baay ci yàlla suñu boroom lay jóge moom mi la def ci yaay di la sàmm di la suturaal lakkoo la dara faatu la ba nga yëg àdduna kon defe naa ne santal yàlla mais bul sant loo xamante ne mooy loolu kon Babacar nga jox ñu benn élément ñu desiwaat fii ci plateau maaleykum salaam man benn Ndiaye laa tudd dëkk Marbat. sant yàlla ñëpp la war képp ku yàlla bind rek sant yàlla war na la ndax boo xëyee cër boo yëngal mu yëngutu rek war ngaa sant yàlla ku yàlla may wér ku ne war ngaa sant yàlla boo amul wér sax war ngaa sant yàlla. boo yeewoo yëngal baaraam mu yëngatu nga sant yàlla nga am soxla dem dox ko delsi sant yàlla la boo wéree santal boo wérul santal waaw yàlla moom fu mu rek war nañ koo sant waaw sant yàlla ñëpp la war ki wérul ki am ak ki amul waaw ndax lépp yàlla ko yor yàlla na yàlla defal nu jàmm may nu wér may nu xel mu nuy xalaate nekk ci jàmm am sutura am teraanga waa kañ waa kañ jërëjëf waa Leral TV maa ngi leen di ñaanal gudd fan ak wér di leen ñaanal ngeen yokk ca kaw ca kanam ba yëg ko yal na yàlla yokk leen dolli seeni xéewal ci barke sëñ baaba di jaajëfal suñu yaay booy boobu rek eh, di ko ñaanal jàmm ak salaam di ko ñaanal gudd fan di ñaan yàlla yàlla yokk ay xéewalam ci barke Mohamed di ñaan yàlla na ko yàlla defal jàmm ñu ngi ko jaajëfal bu baax a baax moom tamit comme ni ñu ko ñaanalee rek di ko jaajëfal ndax ñu dékk la micro nga wax yombul kon suñu yaay yi fi jaar yëpp jaajëfal nañ leen bu baax a baax tonton Matar ñu ngi lay jaajëfal bu baax baax yow tamit yow ak Babacar mi nga xam ne tey yéen a uutu ndey yaa si élément yooyu tonton Ngari tey da ngay gis eh, jullit boo xamante ne dañ naan jullit la ñu ne dañuy ñëw bëgg alal tax ñu ne dañuy dem uti sëriñ boo xam daf leen di defal ay affaire moo xam sacrifice lay doon dangaan kii kat du julli ndax dafa takk ay yenn gàllaaj yi kii du dem si dëj ndax dafa am gàllaaj yu mu takk yoo xam ne dalay may alal ndax as jullit as gor boo xam ne yàllaa la sàkk may la ay xéewal te sa wërsëg xamoo kañ lay ñëw ndax war ngaa mën a dem di def loo xam ne da ngay julli si daru xaj mbaa ngay dem di def loo xam ne doo dem dëj wala doo dem julli. daf sacrifice su bakkan ngir alal it jarul ndax loo def ñaaw def ngir alal am na ko def teraanga ba ëppale la ca ci réew mi fu mu tumal ba maam Mareem tubaab bi bis bu ne ñu tu waaye bis bu ne ñu ngi gaal yi dem ñu nga jëm ñu nga jëm ca tubaab yi ku feebar sax France lay ci mbaa ci yeneen réew yi te bis bu ne ñu xalab leen mhm. sant yàlla leen may leenu nekk xale bu ñu yàlla de am na ñu ci gëmul yàlla am na ñoo xam ne ay attelé bi ne nañ Dieu n'existe pas yàlla mu mais yàlla du doon topp ca loola parce que yàlla am na moom waaye ñu ngay jëf tubaab rek ngay dégg ay plan international ak ay yeneen ONG yoo xam ni ak ñu leen mën a tudd ñu ngi taxawu jullit yoo ashadu an laa ilaaha illallah te laajuñu ci benn bénéfice ba rokk mi rokkaan jox ma jox la defuñu ko ñun nag fii ngi gis ko yor alal bi bari ñu ne ngaa daa feebar dikk taatal ordonnance mu ni yee man de fi ngeen ma fekk baaxul moom. waaw tey de moom daanaka ah ma xool ba xam. ab téeméer lay génn. te yor na cent millions. bis bu ne ngaa wàcc na liggéey mu yeew nag ak kii wuti aw tur. kooku kooku lu mu la mën a wax sant naa santul. loolu nekk ci réew mi ñun dañu am problème du problème politicien ne dañu am problème ak yàlla Sénégal yaakaar nañ ni adduna bi yëpp ñoo ci gën. waaye ñoo ci dàqatoon sama borom ak njéggal day dëgg yeewu sa loxo di métti santal yàlla am na ko yeewu dee sa yeewu sa bopp di métti santal yàlla am xam nga su ma déggee parfois may wax réew mi avancé am na booy yu may compte naan non père yow xanaa dëkkoo Sénégal ah kay dama fay njëkk moo tax damaa xam la ca démb. xam am lu ma fekkewul te ñu déy ma ko. Mm-hmm. am lu ma dund fekk fekke tey. Mm-hmm. ndeysaan. ku ñu réew mi soppikuwul sa jikkoo soppikuwul. waaye réew mi soppiku na. Mm-hmm. soppiku na bu baax a baax. fan lañ fa rangati ceeb. kenn ceeb da nga ko gis fenn. da ngay def choix bi nga bëgg. wax naa ko sax oto bu la neex ngay tukkee ji. léegi nag Sénégal dem dikki sa da ngay fay 4000 mu ñu climatiser la. ba Ndakaaru nga wàcc. jaar péage oto bi daw amul rang. ñëpp am téléphone. dana mhm. rang ci kër yi ku woote ñu wuy ngeen rang mel na kuy fayu. Mhm. ku pare ñibbi keneen ñëw. léegi ku ne sa téléphone 120000 350000 400000. ñu ne ñu doxul. Mhm. <laughs> benn télé lañ daan seetaan mu tudd RTS. léegi ñaata télé na ci réew mi mhm. sa commande na nga yor mhm. di zappé fu la neex xool fu la nga génn ca mhm. en néeg bu ne na këy euh, télé ca war sa nga wóor mbal ngelaw dina ëpp ngay courant der léegi néeg bu ne am na nelaw ba yàgg nga génn bees tàkk ci néeg bi jafal oto bi mu tàkk nga yéeg say doom yi nga seet fu ngeen lekkee am burga wala yeneen ñu réew mi doxul Sénégal na mu sant yàlla géeru nu xuloowu nu xeexu coowal li fi amoon sax du politique coowal nit ak nit la woon coow coow politique amagu fi. xamul sax mox la. ñii coow maanaam bu ne Ousmane Sonko ma tudd ko bokk. ñu ni coowal politique déedéet. 2021 li coow li bari bari foofu la faf doon maire Ziguinchor. ñeneen ñi doon ay député ñeneen ñi doon ay directeur ñeneen ñi ñeneen ba mu bari fan la coow politique am coow nit ak la mën na si ko rek la entre mais réew maa ngi dox. mais nag ku dëkk jàngoo métier jàngoo alxuraan jàngoo école jàngoo àddina nga laaj ci ne suppame bu kenn buggul ne réew mi doxul du dox parce que da ngaa wutu lu doxul réew ma ku ne xam doon dóor ko fenn di mos dara bu maam ma ne reeree soos naanal fonde kenn du nettali seeti bopp noonu lañu sant yàlla parce que ñëpp yemul di lekk ganaar murid day am xaaju noo ah murid mii agro wóorul de. mu mm. fan la jëlee xaaj. Mm. sàcc la de. waaw Sénégal dañoo gaaw jiw sàcc la. Mm-hmm. yow yoroo yoroo rek yow mu muñal. Mm-hmm. bàyyi ki yor yor. dëgg la. daaray nital daal luxus sa yoon newu ci. Mm-hmm. moom daal yor la. waaw yow nag fexeel ba yor. waaye toog ci garab ku ne ngaa ni kii oto bii. Mm. moomu ko ndax doo am oto mukk parce garab ko doo jox oto. loolu nag ci réew dañoo taayee wut. dëgg la ñi wut yow amoo ku ne nga ni dafa sàcc. Mhm. daa jubul yaa jubul. Mhm. parce boo maandoon wuti di comme ñëpp. ndeysaan koy di wuti. Mhm. macha allah ba tax na nañu xëy di. wuti di dama mere ci meruma de. ñu laay waxe <laughs> parce que réew mi toll foofu foog wax gaa yi dëgg. ndeysaanam dëgg la ba tax na tonton Ngari wax ji am na solo lool ba tax na nañuy sant yàlla bu baax a baax a baax nañuy sant yàlla yàlla di ñu dolli ndax kat xéewal yaa ngi fi wax dëgg yàlla xaalis baa ngi fi ku am soxla faj ko waaw kay kon dañuy sant yàlla bu baax a baax a baax ndeya tey da ngay gis eh, jigéen boo xam ne day nekk ci këram di sëy di defee nu ko neex di naagu daagu te dañ ne ku daagu ñu romb la. tey mu dem ba am koo xam ne mu ngi ci biir këram ñëw di góorgóorlu di doxal jëg boroom këram safaak marwa mu ne ah man ka sama wujju wii daf maa def nangam daf maa def nangam du xam ne moom kat moo naagu ndax nee nañ naagu baaxul mais day jàpp ne kii kat daf maa def dara wala dara ngay wax ñooñu gàtt xel rek parce que nee nañu ah, jamono léegi fi mu toll jigéen bu nekk ci biir këram buy say bu ne no soor que ni à tout moment mm-hmm. wujju mën na ko fekk si mm-hmm. kon yow boo nekkee sa biir sa biir néegu say mm-hmm. waroo naagu man dama jàpp ne yow li la war moom nga war a def envers sa jëkkër ak sa njaboot ak sa fi ngay sëy yow defal li la war rek ba leneen am mais bul toog defoo li la war defoo li nga war a def ba keneen ñëw di ko def nga ne ma def nii wala dañ ma def laa wala nangam boo nekkee def leneen bu la keneen fekk see nga xam ni lu yàlla dogal la ndax léegi wujje yaakaar naa ne jamono yu ñu toll kenn mënatu ko fee bañ kon boo nekkee rawatina nga nekk aawa ci kër boo nekkee aawa da war a doon exemple ba keneen ku ñëw rek ci yow lay war a ci yow lay ci lay toog mais naagu jigul ku naagu daagu te ku daagu ñu romb la. Mhm. macha allah ba tax na naagu jigul kenn ku naagu daagu ku daagu ñu romb la ba tax na dañuy dem Babacar bu dee jàppandi na rek nga joxaan ñu beneen élément ñu dellusiwaat fii nga xam ne moo di si plateau bi. dañuy jaajëfal suñu yaay jooy bu rek di ko ñaanal jàmm bu baax a baax a baax wax na wax ju am solo nee na bu la yàlla yeewee si jàmm ak salaam nga yeewu julli fajar rek xëy am loo lekk am loo jox say njaboot war ngaa sant yàlla bu baax a baax a baax. jaam day sant yàlla tonton Ngari tey lan ngay wax euh, boroom kër yi nga xam ne da gis koo xam ne day yor ngandum kër tabax ko ba mu rafet defar côté bu ne at la mu fay def def fii jardin def fii saal def fii fu muy féexloo lu nekk mais doo gis sax ku ne place bii palaasu jullikaay la néegu yàlla suñu boroom la. waaw ñaari ñaari action di ci am. Mhm. Euh, jàkka yàlla dafa santaan dañuy fa daje. Mhm. jullit bi dañu daje ci jàkk ja catholique yi dañu daje ci église bi ngir di bàyyante xel di nam nemmi compté te lu ko ne di bàyyi sa morom xel ndax boo yàggee dem juma wala jàkk dafa am koo xam yéen bokk place saa su ne su ñëwul di nga xam lu tax fexe ba xam dafa bëgg ñu ànd nit mën naa tabax kër bu fa def jàkk parce que moom doo nga fay julli xëy na wala moo keneen dem jàkk ji day gën jox nit mu lekk ba suur dafa gën tabax junni jàkk tabax nga dum kër waaye boole ko ñuy sës ci yow ñëpp loo mos ñu mos ca loolu dafa ëpp doole tabax jàkk foofu kon nag ñi koy def nañ ci sant yàlla sama borom am ñoo xam ne seen alal demul màkka ne la ñu xas leen sa waay nangu te dem moom xam na li tax nangu te dem màkka parce que lam yoon demul màkka moom waaye nit ñi maanu wunu ci loolu moom xam na bopp suñ ko bàyyi noonu mm-hmm. Sénégal suñu maandu woon nag yàlla dimbali. Mhm. parce que ku maandu sant. Mhm. ku maandu sant yàlla. Mhm. parce que waxuma sax nga yeewu xam naa ko sànq yeewu sa bopp di metti yeewu sa tànk di metti yooyu ci sant yàlla parce que saa boo yëgee metti sa bopp. bu ko jiiñ kenn ne yàlla la. mag ñu njëkk ña suñu toogee une semaine. amuñu metti dañuy tiit. ñoo ko yàlla benn gàllankoor boobaa bi léegi. léegi gis ku toog parce que firaaw la. toog na lu mat ñetti téeméeri at feebaru mu ni ma yàlla ku dara méttul nga bew am ñoo xam ni seen lépp mat na lépp mais yàlla seen yoon néew ci wax ko ko sànq ci biir wax ci mhm. Sénégal ku baral ne mhm. ku dee yàlla mhm. danoo jaxase yàlla ak jaam yi ku ñàkk yàlla kun fase yàlla ku ñaan baat yàlla ku amul doom yàlla ku dee yàlla ku xiif yàlla waaye yooyu yëpp day ci kenn mu am ko yaayama parce que yaay kat yaa ko ëpp xaalis ah moom noo de boo ëpp ko xaalis moom te moom liggéeyu ndey day warul doom saa bu ci pind coono barke bàyyi di dimbali doom saa barke war taxaw mais wërsëg yàllaa ko joxe yaa razaqu yàlla baatam boobu moo joxe wërsëg mm-hmm. kon kay joo yàlla jox sante ko ko mais réew mi ne na la xalaat gi ak ñaxtu gi moo bari te booyee ñaxtootuñu de jeunesse bi mhm. non day dem balaa ñu non on est marre ñu dem léegi gaal nga dee ay mhm. laa ñu def yeneen sonn nañ ay mag ñu dee jege mhm. ñooy toog ci yi di ñaxtu parce que dañoo foowee seenum ndaw. ndeysaan ba leen yàlla dimbali ci wërsëg. dañoo newul fu nañu fanaan fa. Mm-hmm. roq su nañu dugal fi seen loxo. dëgg la fu ne fa dégg. di noos léegi nag deewuñu xaalis ba jeex na. Mm-hmm. lu jiñ ko Macky Sall. <laughs> <laughs> moo tax nga toog ci télé bi di ko xalaat moom. Ah. ba ba àdduna tukki. Mm-hmm. day noos dara. yow la la la dimbali woon da nga que yaa macha mm-hmm. allah ba tax na dañuy santaat yàlla bu baax a baax a baax rek di wax ne nañuy góorluwaat di def lépp di ko delloo ci loxo yàlla ku am yàlla la ku ñàkk yàllaa la may mais nag doomu aadama bi da ngay sabablu ndax mm-hmm. yàlla yàlla bay sa tool. mais boo tëddee seen kër toog sa kaw laal ne yàlla dina ñëw yàlla du ñëw de dangay yeewu dem sangu jàpp julli génn dajeeg sa wërsëg mais boo toogee ne yàlla dara du ñëw kon nañuy góorgóorlu bu baax. Ndaya tey boo ñu doon wax solution yi nga xamante ne nii moo nekk ci ak cant ak cant yàlla tey lan nga ñu ci mën a leeral. solution yi mooy comme ni ñu wax rek. lii mère bi sunu yaay boobu génn wax na ko mhm. nee na boo xëyee yeewoo suba teel rek yëngal benn baaraam rek mhm. wàcce sa tànk yëpp nga dox rek mhm. lool rek dafa dafa jar sant yàlla ba pare yàlla sunu borom daf ñu fi teg mais daf ñu jox ay exemple exemple mooy ñi nga xamante ni ñu ak ñoom ñoo am ay nit lañ comme ñun ñii ñu ngi ci hôpitaux yi ñii ñi ngi ci prison yi ñii ñi ngi am ay jafe-jafe ñii ñi ngi toog ñu am lu ñu lekk ñu am lu ñu naaj ñii ñi ngi toog duñu am lu ñu sol ñii amuñu lu ñu boo seen ay doom ñu jàng ñooy ñëpp loolu yëpp difficulté yooyu ngay ngay gis yëpp di ko rencontré di ko dégg ay nit lañ ay doomu aadama lañ yàlla suñu borom teg leen loolu te gënoo leen nit nga comme ñoom kon yow mi nga xamante ni yàlla suñu borom tegu la loolu yow yaa war a gën a sant ndax dangay xool ci sa nawle bi nga xamante ni yàlla jox na ko safaan ba yow mu defal la jàmm rek loolee boo ko xoolee war nga mën a sant yàlla foo toll te bañ a jàmbat ndax ñoom ñooñu place boobu ñu nekkee teewul ñu ngi muñ di am ay difficulté di di souffrir a mën a xamante ni ñu ngi dox suñu soxla di wax suñu soxla hôpital bi ña fa tëdd koo ñëw seeti ko boo ko ne maa ngi tëdd naan la maa ngi sant yàlla lay wax prison bi kon di fa yàlla na la fa yàlla jële mu ni yàlla baax na am yàlla rek la ñuy tudd kon ñun ñi nga xamante loolu lépp yàlla suñu borom dimbali nañu ci teguñu ko dañoo war a di sant bu baax di ko gërëm ko sant waaw di gë di fu ñu toll dañoo war di gërëm yàlla di sant yàlla di ko ñaan mu dolli ñu parce que gënuñu li nga xamante ni tañ na leen safaan te ñun teguñu ko kon jaam na heure bu xëyee rek di sant yàlla saa su ne fu mu toll tey tey boo doon tey ma wax suñu mbokk jigéen ñi nga xam ne yàlla day dogal ñuy am doom yàlla di jëlaat doom boobu noonu oh. heure bu ñu amee bant rek yàlla yóbbu ko wala suñu moroomu jigéen ñi nga xam ne dem nañ ba tollu yenn âge yi mm. te yàlla dénku leen borom kër tey lan nga leen di wax euh, ñooñu leen di wax ñu muñ parce que àdduna lépp loo gis rek muñ la parce que doom neex na trop nga am nga nga nawatina nga nekk ci biir néegu sëy ku sañoon danga fa am danga fa jur doom muy sa am boo fi jógee ñu xoolee say doom di la ñaanal léegi boobu jigéen buy sëy rek bëgg na loolu jigéen bi nga xamante ni amu ko mm-hmm. dafay muñ parce que doom yàlla moo koy may du nit moo koy may boppam parce que yow doo xam lu la koy so lu koy sos si yow ba ni ni mu ni muy demee yëpp ba ni muy sottee nga wasin ko ci jàmm yëpp ndogalu yàlla la kon yaakaar naa ku ko amul tamit war na xam ne loolu ci yàlla suñu borom la mais du nit ki nit defalul loolu boppam nit mënul boppam dara lépp yàlla la ñu muñ aussi xam ne yàlla ba dafa bind te yamalewul dafa may ñi xañ leen ñi xëy na ñi mu xañ loolu ëllëg am na leneen lu mu leen dencal que que ñàkk doom ñàkk doom boobu. Mhm. bien que neexul nag mais muñ la. waaw parce que am na ñoo xamante ni yàlla suñu borom nee na danañ am doom mhm. am ñoo xamante ni yàlla dana danañu ëmb te ñu wasin avortement la dawal doom bu juddu dellu delluwaat am na ñoo xamante ni yàlla bind na ci ñoom que ni duñu mës a am ëmb bu yàqu mhm. ñu am doom. am na ñoo xamante danañ sëy danañu dund ba génn àdduna te duñu am jëkkër mhm. comme euh, am na góor ñoo xamante danañ danañu dund ba génn àdduna te duñu am jabar loolu lépp c'est le destin mhm. yàlla suñu borom dafay bind li nga sa jaar-jaaru àdduna avant ngay ñëw ci àdduna bi mhm. mooy destin allah kulli haali fi mu fi mu loolu foofu ngay jaar foofu ngay jaar ba keroog ngay génn àdduna macha allah ba tax na doomu aadama bi fu mu toll rek war nay sant yàlla bu baax a baax a baax ndaxte kat dañuy wax ne jur mu dee taxut a yara dal jur ne léegi te fajul dara loolu mooy yara dal jur ne léegi mooy lan doom joo xam ne màgg na ba toll ne papaam mënu lu koo jox añ mënu koo jox reer tey ñun la kaay moo fi jël lii moo fi jël nangam nga ne ndogalu yàlla la déedéet parañ saa yi ndogalu yàlla lay doon mais parañ saa yi mu doon ca yar ba tonton nga da ngay gis boroom kër boo xam ne xamul sax ay doomam boobu sax du xam ñaata doom la am lijjantiwul ay doomam xamul nu ñu mel ay doomam bu ñu amee cicatrice seen kanam sax xamu ko bisay ñëw rek ah, sa doom ka def na fi nangam wala nangam yow nga mën a jur te doo sant doo toog mën a yor say doom teg leen ci yoonu siraatal mustaxima euh, fexe ba xam say doom am leen taxaw ñoom dafa bokk ci sant yàlla léeg-léeg ma dégg ku ne diw daa bëgg doom yi waaw boo bëgg sa doom da bañ daa bëgg doom ja mais doom boo ko bëggul da koy bañ te yàlla sant du bañ kenn ndax nit la comme yow yàlla da ko jaarale ci yow li ndeyaa wax dëgg la suñu borom dafa planifié adduna bi teg ko ci moom ni ko neex di ko doxal te maandu nag Sénégal ñoo maanduwul Sénégal dafa am presque dix-huit millions yàlla Sénégal daal ku ñëpp yàlla Sénégal dafa am dix-huit millions juges hmm. ak avocat ak procureur entraîneur Sénégal ay docteur hmm. maanaam dix-huit millions da hmm. gis xam ni ak ministre waaye day wax feebaru cancer moom da cay joxe xalaatam moom nee na xam na ca Sénégal la ñàkk maanaam yàlla moo planifié addunaam kenn ku ne mu xam la lay arrangé moom xam na ko ca la la teg mais yow koy dindi teg ko fa parce que waroo doon loola ngaari mii su ma ko joxee xaalis sawaraan lay fàkk ëllëg joxul ngaari xaalis ngaari day mer bu ko ji yàlla de daal ma taar saaxuma liggéey am ko ne ko non mu dugg sëriñ ba di wax mu rek sûrement foofu la demoon dara wóoru ko ci parce que yàlla bu yàlla doo jox xaalis parce que bu la ko joxee sawara ngay dëkki ëllëg xam na de ku yàlla joxe milliard tiital dërëm bu ne dana laaj foo ko jëlee yaa moom rek nga wax dërëm ko dugal muy aller retour da ko nekk li yàlla sama borom kon war ngaa jaaxle bés boo jàkkaarloo yàlla Sénégal nag ñun ñun moom su ñoom ñëw ci ëllëg moom alal lan bëgg fi mu ne ngir xëllantoo ko aw tuumaalante bi mel na tulleeg màlle Sénégal pour nga dégg yàlla parfois dee mooy am ñu dem sa biir nga dégg yàlla à part ça déggatoo yàlla parce que yàlla exécuté exigé wul ci kanamu jaam yi yàlla day gis nga Sénégal yàlla dañ ñëw dernier moment bu nee ba lépp kale lépp jeex lépp yàqu mënut ci dara ñu ne fa yàlla ne Sénégal ngay gis gars yi fal ngaa ñu gars yi fal nañ gars yi président yi fàttali yàlla. gis ku ni barke alxuraan lay barke alxuraan di way fal. ndeysaan kii bi billaahi wallaahi lasi laa ilaaha illaa yàlla na ca dëgg muy déwél fan billaahi ndeysaan mën naa fekk dëgg dëgg réew yow yow la nga reeroon àllar boobu de xamoo ko déedéet xamoo lay dal sànq suba ci ngoon yow fal nga nit yow hmm, ndeysaan teg sa kaala réew mi loolu fi ne nag koo gis ma ngay wax hmm. yàlla weesu loolu dañoo jël place yàlla di fal jàmm hmm. président de la République yàlla moo koy fal. Mhm. tàgguwu ci Seydina Mouhamed. sallallahu alayhi wa sallam pour mën a keneen. ndeysaan. <laughs> parce que Moustapha. Mhm. mës naa wax ak saaba yi dige. Mhm. te loxo incha allah. ci saa si yàlla defal ko appel Jibril ne ko tooñ na ma. ndeysaan Jibril ñëw ko sa borom neen tooñ nga ko jéggalu ko parce que moom mooy dogal du yow. ñaata jamono lu tuub loola. jéggalu ko parce que incha allahu yàlla mooy dogal. gis koo dikk nag ni ko muy xaatar xaatar yi naa ko fi waxati mhm. mhm. ah, lekk sa yàpp jël loxo teg ko ci mbagg ñu uuf la ngay xeeñ parfum boo ni gis nga yàlla waxoo dëgg. <laughs> Ah, doy na waar loolu waa man ñun ñu ñuul moom kon kay ah ñun ñu ñuul nag. yaa ngi ñuy tooy faral na ko bu rek yàlla woon na ma biir yàlla day woon ko faral na ko. kon daal daal teg ci naan njar mm. jeeg jege la. di ah. kese kese ngi ci guddi nga yàlla woon na naxoonu kenn sa bopp ngay na xam nga ni gisoo yàlla saytaane sax gisoo. billahi macha allah oui sama lañ kenn mësu koo gis ba tax na ay yàlla ñu yàlla jéggal rek ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal ñëpp jàmm di jéggalu bu baax a baax di leen fàttali ne ñu ngi fii nga xam te ne mooy leeral TV leeral point net émission aada ak cosaan ñu koy def dimanche bu jot di santaat yàlla bu baax a baax a baax Ndeya lan ngay tàggatoo. <laughs> waaw ba pare ñu ngi ñu ñu tàggatoo di wax rek di gën a ñaaxaat rek surtout. Mhm. muy jigéen muy góor képp kuy doomu aadama rek euh, mhm. boo xëyee rek war nga gën a sant yàlla. Mhm. parce que ñëpp la war. boo xëyee nooy rek xëy suur suba ba ngoon jot dara jotu la rek. del wax alhamdulilah rabbil alamin di sant yàlla bu baax foo toll ndax yàlla suñu borom dafa bëgg ku koy sant ndax nee na sant leen ma dolli leen. Euh, ñu ñu leen ñu amoon mbégte ak contentement di partage ak émission bi ak yéen. di leen wax ne aussi waa Louga ak fépp di wax fi ni nekk di leen lancer suñu projet Ndeya Events ñu nekk Mame Marème sax yow ci nga bokk mhm. groupe boo xamante ni ay ay góor la ñoo ay jigéen dañuy couvrir événementiel yëpp mhm. religieux mariage ngénte mhm. ak euh, yëpp dañ koy couvrir ku am sa événement boo ñu contacter groupe waa Ndeya Events dañuy ñëw couvrir la sa programme defal la lépp ba mu baax numéro bi nekk 77 671 79 23 suñ ci contacter incha allah rek dinañ ñëw couvrir la sa programme ba mu baax ñu amoon mbégte contentement waat émission bi comme niñ ko faale defee dimanche bu jot amoon mbégte contentement di ko partage ak yow di jaajëfal tonton Matar mi demoon jëli éléments yi ak Babacar mu ci régie bi Murit di ko ñaano yàlla loxo bi wér ak tonton ak yow maam madame ñu leen beneen dimanche incha allah <laughs> merci beaucoup Ndaya ñaan yi am na solo loolu ba tax na lépp loo fii ñaan rek na ko yàlla nangu bu baax a baax Murit ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax tamit si bu mu xala boobu nga xam ne moom nga yore tonton Ngari lan ngay tàggatoo sama tàggatoo daal conseil laay doon ci réew ndax ci réew mi laa bokk. Mhm. bu tàkkee du ma mucc. Mhm. su jàmmaanee ma mën a am jaamu yàlla bu wér. Mhm. yàlla nangu nag xaw ma. gis naa fi loo xam ne mi ngi raam te ay mag koy def. xam naa ko sànq ay mag. mag day baax. di def lu baax. di wax lu baax. seetaan naa benn télé barki démb gis ñetti mag. benn ancien commissaire de police. Mhm. ancien professeur. Mhm. Mhm. mais ndaw ma seen waxtaan. du ma tudd télé waaye bu ma dégg dañuy xam ni seetaan nañu leen. ndaw ma seen waxtaan. kooku du waxtaanu kilifa. surtout boo jaaree ci yenn yenn yenn yenn liggéey yi. da nga am parce que kilifa colonel bu gendarmerie. retraité commissaire de police bu retraité am na loo denc. yow boo moo télé. ma xam na nga cay waxee. su ma déggee professeur ba ancien professeur ni appel à l'institution euh, tuyaa bala mhm. ma ne ma ne booy bi euh, j'appelle ma lu mhm. ma seetaan lii mhm. parce que ñu ko wax ñëpp dem nañ kaso mooy ba ngaa woote ak fit nga ni tuyaa bala waa ji laa nga lu tax nga ni parce que nguur gi fi nekk dañ koo war a jële waaw war nañ ko faa jële bu leen neexee mais carte ko faral carte koy dindi surtout boo nekkee yenn intellectuel di wax yenn yi moo tax man la gone yi man day jéggal naa leen. mooy def tuuti dara léegi ay mag. yu dee dese. ñoo war nag taal bi tàkk au lieu ñu fay ci ndox. dañoo wuti état essence pour taal mais bu tàkkee duñ mucc de. xam nga su taal bi tàkkee Babacar xel yëpp mën a daw. bokkut ak sa maam xel yëpp mën a daw. maam day dee. saxaar saa lay rey kon. mag day defar am réew. wax lu baax. gis nga réew mi. ba ne mbooloo joxewul toog kenn président. yàlla mooy tànn président. yàlla du tànn koy fen du tànn naa fekk. du tànn ko soxor du tànn ko bon du ko dénk réew. soyons sérieux nañ xam yàlla. yàlla caaxaanuñ. ñun ñooy caaxaan. bari mbooloo bu doon tax a ji ci église la ca kanam. amul ndax ndànk ci réew mi. 2024. président danaa moom du am yàlla tànn na kii ko doon ba pare. ku nekk maandu ca ndax ndànk. ba fa jeexal gis naa ñaari nit. kenn ki tudd Ayib Dafe. Mhm. nga tudd Tura. Mhm. ak avocat Cyril lii defe naa gis nga nit. Mhm. ñu dégg ma la coow li am ci affaire Ousmane Sonko yu ni mel. waaye waaye bu fekkee juge bi nee na. delloo leen ko ci liste électorale yi dafa ñaan. mais dafa am foo xam ne fa la mbaxane doon na benn. ñooñu bu nee waaw rek c'est fini. bu nee déet c'est fini. yow boo xëyee au lieu nga liggéey nga dem DG ci direction direction générale ay fichier xam nga doo ko fekk mais c'est pour yee fitna ñooñu dañ leen a yilif la ñu am ministère soo bëggee lijjanti loolu demal ca ministère de l'intérieur wala de la justice ñoom ñu wax mais fee ngay dem ñoom a sant rek loo fay ay fitna nanu bàyyi yee am am na saa bu dogal yàlla dogalee tey jii ni Ousmane Sonko doon président Sénégal ki du mun ci dara parce que yàlla namm na ko bu ko yàlla nammul ku doon jooyee dara te dëkk ko ko def ak kenn ku mën a doon kon nañu sérieux mhm. Sénégal dong la noonu mhm. ñi ne ci télé yi nag di waatakaat imaam la noo xutba samaan la noo ñu wax leen neex rek yàlla noppi na ci loolu mhm. kon nag ñu dimbalante te yàlla rek tax man jàppalante te yàlla rek tax kenn ku ne bàyyi sa morom kat ñu bàyyi tuumalante bi ak jiñante càcc gi jiñante fen daganul ci am réew diw daa sàcc te bu la yóbbu police nga non c'est ma ko wax daa sàcc di waaye bu la yóbbu police nga man Babacar ma woo dégg nga maam wax ma waaye waxee ma ko noonu da nga tuutal sa bopp ñu dañ sérieux wax lu mu wóoru te lu mu wóor si bu ñu koy wax am de kon nag sant yàlla daa war jul bu ne tey kenn ku ne waajal bar taxaw na mhm. dem par force ku mu neex ak ku mu naqari mhm. dee par force ku ne waajal sa njaboot waajal sa bopp diggante dimanche ba altine kenn du ci mucc ku xëy na nga gont mhm. kon nañ préparé wu incha allah dem <laughs> tàggoo de nga tàggoo fa di gërëm ñëpp euh, euh, di wax nit ñi waa Mbarigalle. Mhm. Allah. Mhm. waa Mbarigalle Allah. na mhm. euh, leen Sénégal gën a xam. dëkk bu yéeme tur bi rek doy na. dëkkub yàlla. ndeysaan kërub yàlla. ndagam yàlla la ñu wut dañ fay dem. seet nga fa ne. Serigne Moustapha nga fa. ku yàlla dégg xam-xam. ndeysaan te soxoru ci. te yaatu na ci te laa biir na ci te ñu ci jàppale jaam yi. te mën nañu ko. ndax ziaru Thierno Bachir Tall bii ñu dox. ñu ngi rëy rëy. faral di koy waaj a doog a dikk ci ziar bi. ndeysaan. talaata paas ñoom ñëpp ña nga fa. kon nag ñu ngi wax am ñëpp ñu leen bari gàll dëkk bu am solo. ku fa bëgg a demit yoonu Touba boo paasee jotaar ba. ca euh, dëkk bu lëkk laa jor bu mu tuddati. kër kër Amadou Yàlla kër Amadou Yàlla rek. bët ñoo takkaloo. saa boo fu ñëwee boo génnee kër Amadou Yàlla dugg fa daa dugg fi ñun kër Amadou Yàlla. Mm-hmm. soo laajee Moustapha ma nga fa. Mm-hmm. yàlla may na ko xam ak waa dëkk ba. Mm-hmm. ku ñu jàppa ñaan la yàlla tey wutuñu alal ah. sama borom dimbali la ñu sàkk ñaan foofu xam na gërëm bàjjan am itam dañu xaali mm-hmm. eh, di jaar bu baax Serigne Gueye Diop xaritam mu sës ci moom bu wàcc liggéey yàlla ko yàlla yërëm ko yeete ñu sama xarit nit ku baax moom it ku xam lu mu bëgg yàlla ko yàlla gunge maa ngi gërëm Babacar ci réalisation bi mhm. Matar Sakho ci élément yi Mourid ci xalam nga yaa mu ngi koy gërëm ak euh, entreprise boobu mu yàlla ko yàlla barkeel mu kawe lool bu su euh, njortam lam ciy séntu yàlla jox ko ak ñem ci àndal parce que yaa ngi ci bonne voie mooy mhm. jeune day créer dara pour ne ci te bàyyi ñaxtu amul njëriñ ñaxtu mhm. boo ñaxtu gaa yi romb la de ngay ñaxtu rek gaa yi liggéey bàyyi def yoro oto yeeg yëf yi nga toog ci taatu garab waa Kumba yàlla yàlla bi maam Maram yàlla yàlla jàppale sa njaboot awul ëllëg dafa la taw feex bu yaatu yaatu te mboolem ñu doon déglu ah, ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax ndaxte li nga wax yëpp am na solo lépp loo fi wax rek yàlla na ko yàlla dugal ci xel yi bu baax a baax a baax ñuy ziyaare waa dëkk boobu nga xam ne mooy dëkku yàlla mu nekk ci wetu kër amatu ñu ngi leen di ziyaar ñoom tamit di leen wax ne bu leen ñu fàtte ci ñaan ñu ngi leen di ziyaar dinañ fa ñëw nag seet si leen incha allah bi dinañ fa dem seeti leen bu soobee yàlla ndax ñun lépp loo xam ne lu yàlla bokkul la ñun soxlawuñ ko lépp loo xam ne nag mbiri yàlla la dañ ciy sawar bu baax a baax ndeyaa ma lay ñaanal sa entreprise boobu nga xam ne moom nga yëkkati yàlla na ci yàlla def barke yàlla suturaal la ci comme ni ko tonton Ngaari waxee ba nga ciy dawal ay oto yu bare bare bari ci barke Seydina Mohamed di ñaanal ñëpp jàmm bàyyiwuma kenn di ziare maa ngi ziare Arouna Sall ca Daaru Cubb maa bu baax a baax di ko ñaanal sama tante bu fa nekk Ndey Senghor ak samay ak sama chéri ba fa ne Anta Diallo maa ngi lay ziare bu baax a baax a baax di ziare waa Daaru Cubb yëpp di ziare sama yaay may Maymuna di ko ñaanal jàmm ak sam pap ma waa dëkk njëre wàqi man aw ma lu dul foofu maa ngi leen di ziar bu baax a baax a ak sama waa koñ waa nouvellisé ziar naa leen bu baax di leen ñaana jàmm di ziar képp koo xamante ne yaa ngi ci leeral tv leeral point net ki ci kaw ba ki ci suuf maa ngi lay ñaanal jàmm bu baax a baax Babacar kenn du yow ci ñum réew waaye Serigne Diop moom nga wax muy tëyeer ñu ngi koy ñaanal jàmm bu baax a baax moom lu mu ñaw rek def na ko ceeb moom ak Babacar mi ñu jàkkaarloo ñoo yam taluñu dara lekk naan ñu ngi leen di ziar bu baax Babacar suñu jarbaat bi nag namm nañ ko bu baax a baax Ablaye moom kenn du ñu ngi koy ñaanal jàmm murit maa ngi lay ñaanal jàmm bu baax yow tamit yow bi nga xam ne yaa ñuy wéttali ci bu mu xalam bu neex bu am solo lool ñu ngi lay ziar di la ñaanal jàmm bu baax di leen jox rendez-vous dimanche incha allah rabbi 15h30 ci leeral TV leeral point net émission aada ak cosaan ñuy ñaan yàlla nañu yàlla may sutura yàlla nañu yàlla may jàmm yàlla nañu yàlla defal jàmm ak salaam yàlla nañu yàlla defal xéewal yàlla nañu yàlla may borom kër yi xaalis bu bëri yàlla defal ñu jàmm ci barke Seydina Mohamed nekk leen si jàmm merci beaucoup ciao ciao